waaye kon jaayante googu nag mooy topp yoon wow jub ak topp sëriñ bi ci melo yépp ba sàkku ci boromam tege ca yoon wii ñu doon wax wax di siraatal mustaqim kulliya wa man li wéccëg bi intama liya nga xam ne kon moom it yoon wii sëriñ bi xal di yoonu jub te yonent bi alayhi salaatu salaam xàlloon ko ca woowa la la bëgg jaar jaarale ca it ak njabootam waaye doo soxla naa xayra ridaaka yaa karim wa tawbatan nasuux bil xadim sàkku ki jaayante sañ naa séentu ngërëm ndax yàlla bi muy bi muy gërëm gaaña laqad radiyallahu anil muminin li leen ko yóbbee mooy jaayante ga kon sàkku ngërëmul yàlla ak njëggalu borom bi subhanahu wa taala jaare ko ci sëriñ bi ba mu jaayanteeg sëriñ Tuubaa yi mësul tàggoog moom bu dee ca Ceen ba ñu jógee gànnaar ca Ceen béréb la boo xam ne béréb bu tar la waaye teewul mu nekk fa nga xam ne dañuy wax ne foofu sax la njëkk a sampe kër kon loola it ak sax la ak jaayanteeg sëriñ bi ak wéet fa ak nu ngoon nekk ci wetu Sayxul Xadiim Euh, loola it jaayante googu mu jaayante nga xam ne melo yi kiy jaayante lamboo yëpp lamboo na ko ginnaaw ba mu gisee sëriñ bu mat sëriñ boobu ñuy jaayanteel loola nag na yàlla fàggule woon gaaña jaayante woon te aw ca yoon wa ngëneel moom it loolu la ko yàlla jagleele moom sëñ ma sàmba kan ni ci ay ngëneel ci Seyxul Xadiim ba mu jaayante te nu mu di ko lëggeel te topp ci euh, loola bokk na ca mu bokk ci asxaabul janna nga xam ne asatun mubashara bil janna ya yonent bi amoon sëñ Touba da koo am te sëñ Massamba Kanni ni mii bokk na ca ñooña ginnaaw bi leen sëriñ bi bégalee ñu bokk ca ñooña nga xam ne bis Sayxul Xadiim moom sëñ Massamba mi ñeneen ca ñoom sëriñ bi moo ne leen kuunu min ashaabil janna nekk leen ci ñooñ àjjana ñu ne tekk sëñ bi ne ne xuuru naaw wax leen ne bokk nañ ca nekk nañ ca ñoom ñëpp na kunnaahu kunnaahu sëñ ma sàmba kandi mi daa yendoo baamtu loola nekk ab jël kon day mel ni loolu yi euh, nii yonent bi amee xej yooyu noonu la sëñ tubaa amee te sëñ ma sàmba kandi mi ca la bokk ci ñooñu bokk na ci yooyu it te jaayante may ko ko mooy sëriñ bi wanal ko boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon xanaa dàqonte naag gaa ñii nga xam ne nee nañ yonent bi moom kenn du ko gis te te fi ne loolu buñ ko doon xóotal di ci werante gaa ñi du ci ñi koy ñàkk a gis ci kin mënta gis lay doon yonent bi facilité am war na romb lool ku yoon wa te koo gis du ci yow mi ko gisut moom moo am béréb yu mënta yegg kon te yonent bi dara du ko téye moo tax léegi-léegi ma gaa yii di dajji lool buñ xamoon la ñuy jur ndax cim xel lañ koy teg te xel ñëpp ko am la waaj a waxoon rek di waxtaan na ngeen déglu du ma fi wax lu dul yàlla ak rasulullah benn waaye na ñokket boo xam ne dañuy wax ne daa wéri na déglu leen wattu yet muy wax ba yàgg mu ne saa maam ne mu ne dellu leen seen bopp ndax mi ngi ci boppam waaye saa yoo indi xel rek gars yi ñoom it yor nañ xalaat yu mën a ànd ak yow kon sëriñ bee ko woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci njaareem jaayante it may na ko sëñ Tuubaa amoon na néeg bu nekk ci boo xam ne ci biir kër gu mag dane woon ku dul Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ ma Kan ni bu ma fa fekk nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall rek la mayoon ak sëñ ma Kan ni bu so nu fekk ko ca ca néeg boobee am na bisit Serigne Touba woo ko ngir jaayante njariñ la ca nekk ak Serigne Afiye Ñang ak sëñ ma Massamba Diop Sam daal di wax ne yàlla sama boroom moo ma digal ma yóbbu leen foo xam ne yàq ak siw kon xoola googu ñoŋal kon da ngeen may jox seen bopp te doo leen ci desal dara xanaa kon ak jaayante ngoog da may jox seen bopp te doo leen ci desal dara te bàyyi àdduna mii nag sëñ ma sàmba kenn ne ko jox nañ la suñ bopp te bàyyiwuñ ca dara ba noppi jox la njëgg te buñ bëggee xàcc ba nangu xoola gi jaayante gu wér xanaa kon <laughs> jaayante leer na ba noppi ne ko àdduna nag dañuy aw nit bëgg nañ ko nu dimbale sëñ bi ne ko hagada noonu laa ko bëggee woon waaye sama boroom moo ma digal ma yóbbu leen foo xam ne ak yàq ak siw maanaam kun assuré noonu yombul sëñ bi assuré la ah tout risque bépp danger buy war a yàqal pas-pas loola du am ci yow ngir sëriñ bi moo dox melawoo ci digganteem ak ah, sëñ Massamba yi loolu yit bokk na ci kon ay ngëneelam yu ko yàlla jox jagleel ko kon day mel ni jaayante googoog jeex gim jeex ci sëñ bi moo ko mayoon bu masaa toog fi Cheikhul Xadim bu sëñ Tuubaa dee waare di waxtaan ak mag ñi sëñ Masamba day day bindi rek sëñ Masamba Kanni day bindi rek ba am na ci ñooñ sax doon nañ wax ne ko bàyyil bu sëñ bi wax nga yëngu mu ne xanaa ma jéem ko benn bi sëñ bi wax mu ne tekk jéem a téye boppam sëñ bee laajal boppam ne xanaa ma Samba Kanni dafay newut ñu xam ne kon bindi ga ak yëngu ba neex na sëriñ bi seetlul googu melo nga xam ne bu sëñ biy wax day bind nii ngir li muy wax ni mu koy dundee ak léegi bu sëñ bi wax li xew jël sëñ bi jeex ci moom ba fadlan na ala siwa dati alqadim kulli bihi min xalqi euh, asir ya qadim min asir asir ya qadim jeexalal ma ci sëñ bi jeex ci sëñ bi tag doo lu muy desal sëñ ma sàmba joxut gi wet sëñ Tuuba bàyyi gii léppam la jox Seyxul Xadim moo tax Cheikh Abdoul Qadir Mbacké waxoon na ne sëñ ma samba kan ni yàlla suñu borom moo ko xaasal ci cheikhul xadim moo ko xaasal ci cheikhul xadim moo tax it buñ loo jaayante gi xool lettre bi sëñ Tuubaa bind sëñ ma sàmba kan ni loolu ke ku jaayante boo noppee noonu ngay mel boo ko xoolee rek inna waliyallah wa sayyidi muhammad alhamdulillah wahda wa salaatu wa salaamu ala man la nabiya baad ama baad fa aqulu musalliman wa mujiban li xalili wa habibi ma sàmba kan ah kii de moom ak xaritam ak wóor ak soppeem leer na ci sëñ Tuubaa moom la mu wax alquran anta habibi wa xalili wax na ko sëñ ma Kanni ku ko mën a créer yóbbu ko feneen bii moom wóor na moom ndax da wax fi mu ne bii moom gisees na sëñ Tuubaa nag sama xarit nga sama soppe nga alxill wal xibbu xam nga lu muy jur xam nga léegi-léegi wax kenn xill te du ne la alxibbu waaye alxill wal xibbu mooy indi nawlante li ko dal ci yonente bi xillan wa xibban wa ma abahu ya ma yabahu looloy waral lu la neex neex ko lu ko neex neex la waaye boo yemee ci xill rek léegi-léegi ngeen juwooyu déggin lii neex ko du la neex lii neex la du ko neex waaye alxill wal xibbu nag moo tax fi ne même kiy nekk xadimi rasul day donn maqaama moomu nekk alxill wal xibbu sëñ Tuubaa nag moom la def sëñ Masamba Kanni nekk xaliili wa habiibi te loolu alxuraan rek la ko mas a wax loolu it bu ca doon yem kon mu leeral ne min nii salaamun ila man nuuruhu zahara xata gada libtilaaxi diini mutahira xillil ke nii nii man qad qiila inna lahu jalban ila allah hatta qalbuhu baxira maa ngi jëme sama nuyoo bii ci ki nga xam ne ak leeram dafa fës leer ci jëm ci yàlla ak di ko sakku ak diine ju wér sama xarit boobu bokk di sëñ ma sàmba kan ni mi nga xam ne am na ak gës bu mëcc mëcc sóob la ku yàlla wommat ñot di jëme ca boppam bam nekk borom xol bu leer borom xol bu jekk hada wa yaqil kun bi amrin mumtasila wala tazal an nawayi la munzajira maa ngi lay dénk nag ginnaaw bi nga jaayante kon gis nga lii maa ngi lay dénk nanga nga sax ci ndigali yàlla waaye li yàlla yi tere nag bu ca jëm bu ko wuti gis nga boo jëmee ci li la yàlla digal bàyyi lim la tere daraje joo am ganoo buñ la taxal na nga xam ne fa inna kulla maqamin fawqahu rutabun ala fa nafsika jahidan wastabira ba ngay doonu gëbi doon général doon officier doon nangam nangam garaat boo takk boo jëfee ndigal bàyyi tere waxtu wu ne dangay ngay yéeg ndax daraja ju ne am na ju ko gën a kawe daraja ju ne am na ju ko gën a waaye la koy may nag mooy melo yooyu mu wax wala takun li kalaami nas multafita bal sir ila allah bul euh, gestu ci waxi nit ñi bul gestu nit ñi ndax rida nas gaayatun la kenn ku mën a am ngërëmi nit ñëw li mel na mbokk di wax ne nit ñi kuy dem lii lañ àndeek yow ku am ñu topp la ku ñàkk ñu bala ku wopp nu daw la ku dee nu fàtte la ku mere jéemal la bu mënul ci yow dara yàq sab der da gis ca Kajoor ak Bawol ñoo xam ne kenn daaw dugg seen kër timis bi ñu amee étage fa la ñuy martoo ba noppi di ko tekkiil nag ay tuuma da ngeen soxor ni ko sëñ bi dafa leen neexul ku am ñu topp la ku ñàkk ñu bala boo ko amee ba yàggit nga ñàkk ko ña la daan fréquenté ñoo naan ah man de xamoon naa dana nii lay mujje man de moo tax mosulit ma faa gis te fekk daana fa ñëw moo tax gisoo gaa ñi daan tukki ba am te amatul ak a metti léegi wala ku dencoon dara ba yàgg dencatoo maanaam lu ñu la daan yëgal duutoo ko yëg da ngay toog ba yàgg ah màggal ko kon tay la ñu ne démb ca ngoon te yow lañ ko diw moom diw moom doom ñi ñu ne sëy na bu yàgg nga ne moo xale bi fi juddu barki dem fekk yorotoo dara te tudduma yow lañ woowoon ndax yaa ko joxe ko am ñu topp la ku ñàkk ñu bala ku dee ñu fàtte la nag ndemu si yàlla sa da ngay toog ba yàgg dégg kuri lu ciy jiw eh, dee na rek kun mere jéemal la ab saako buñ takk lañ yor lu ci ne ci baax buñ la meree juutal ko kun la mën a kalaameel kalaameel la kun mën la yàqal yàqal la buñ la meree jéemal la buñ mënu ci yow dara nag yàq sa der gëmul sëñ Tuubaa day dóor ay bagage la yor te damay wax ne ñàkki bagage moom ci la yembaree toll ne ci adduna ñëpp wuti bagage amoon ko ba tard <laughs> doo jamonoy bagage kay da ngay fexe ami bagage ba kenn du la fel rek fexe ba bokk <laughs> bu wante dafa am njëriñ bokk par force <laughs> loolu kon lu koy maye jar na ko d'abord kon wala takun li kalaminag multafita balsil ila allah la tasul lahum nadara na nga jëm ci yàlla waaye bul gestu nit ñi fa in atatka min arrahmani nicmatahu fashkur wa kun li ada wal bu's mustabira bu xéewalu yàlla ñëwee ci yow ma sàmba kenn ni na nga sant moo tax cant gii te dakk dañoo war di sant gis nga yàlla bu la xéewalee sallallahu alayhi wa sallam moo ne inna allaha yuridu an yara aadaara nicmatihi ala abudi yàlla ci boppam moo bëgg a gis xéewal gi mu def ci jaam bi jeexintal yi ñëw ci moom yàlla ko bëggal boppam kon na nga sant la ko Sëriñ Tuubaa wax na nga xam ne gestu ci nit ñi nag ak jëm ci ñoom xijaab la day dox sa diggante ak sa borom waaye man duma la fàtte man Serigne Touba mukk ci di la sàkkul ci yàlla mi nga xam ne mooy borom yéwénal mooy borom ngëneel duma ko fàtte mukk moo tax sëñ Moussa Kane yaa ajaban Serigne Massamba Kanni fañ tànne xutbu ya fa lañ ko tànne sëñ Touba kenn gonte ko de yaa ajaban Serigne Massamba Kanni fañ tànne xutbu ya fa lañ ko tànne moo gëm Serigne Touba te gëm rasuulu ba muy xale la teel a am wusuulu bu bamba dee hadis mu naa ko ëskey mëj sóob la woon moo nuru bamba moo xay moom sëñ ma sàmba kan bi moo tax Cheikh Ibrahima Fall di naan ba muy xalel Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne ndokk ba muy gone waaye bu doon mag kenn du am ci sëñ bi dara yitte jure yi rek ko ko may mooy Cheikh ma sàmba kan bi li ma wax ci ni sëñ Touba def gaa yi xam nga sëñ Touba li may nett li yi mooy xuuf paa mi mu def xuuf paa <laughs> xuuf paa xabatu rab yi war rasula wal kitab mustaqniyan anil azab bi bisaab loolu mooy xuuf pa ngoor yàlla ngoor rasulaay ngoor alxuraan léegi jeex na xuuf pa nag bu amee ñi ñi perte dañuy xundu <laughs> moo waral coow yi ngay dégg ak léegi la nga dégg ko ruq ne ci ruq génn wax nanga wax lépp ñàkk ci paa bi rek a ko yóbbu waaw ah. radiya anillah wa rasul wa ahlu badrin wa atani suulu kon loolu mooy mooy xuuf pa sëñ bi dafa xuuf waxee naa ko gaañu nu ne l'homme pris fort ak jàngalee naa ko ci contre son camp camp <laughs> yépp mais xuuf baa rek yàlla la gaa yi jëkkalante sëñ Tuubaa jëkk ci rasulullahi sëñ Tuubaa jëkk ci alquran sëñ Tuubaa jëkk ci xabatu rabbi wa rasula wal kitab mustaqdin an il xisaab yi bi sawab loolu mooy xuuf paa ñiy dégg jamono xam boo daan paa écart yi da ngay gis koo xam ne moom day gañ rek di gañ di gañ ba paa bi jeex ñu ne diw xuuf na paa bi mooy nii sëñ Tuubaa def boo xuufee paa nag pënd bi danañ ko kon Cheikh Massamba Kanni looloo tax Serigne Moussa Ka tagg ko mela woo xam ne mela li may jeexante ndax waxtu yu jot na mooy ku mel nii nag la yàllay may ngëneel moo tax Cheikh Mouhamadul Moustapha sëñ ma sàmba kan ni mas na faa ñëw bay dellu mu ne kii de xaw ma ko ko gën ci kaw suuf te ba mu génnee adduna yi Cheikh Mouhamadul Moustapha moo wax ne suufu su bàmmeelu sëñ ma sàmba kan ni de barab buñ ko def ñu jéggal borom ñu jéggal borom kon sëñ ma bu so mi nga xam ne mooy magamit ba mu ko taxawoo moo waxoon ne xaw ma fa mu jëm ku ko gën a jege Serigne Touba mu nekkoon koo xam ne ku gore ku yaatu ku tabe ku amuk dogu kuy jàngale aw yoon kon mag ñaangoog ku bëgg fooroy am nga ko ku bëgg référence am nga ko jaayante du fi jóg waaye koy jaayanteel na nga ko xam léegi nag Serigne su bee sa bari jiite dayira ba yàgg nga koolu dib Serigne doon jëwriñ ji du doo baas lank ci yëpp melawu nit di doo ca yem léegi da ngay toog ba yàgg jàng ñaari téere beru di incarné cati baaraam di dégagé looy encaisse baa nga ne jot dëgg sa musóor baa sa kol di woote aw góor di la raamal mel ne yoonu sëñ Tuubaa wi day yoon wun tegut ci yoon déedéet sëñ Tuubaa manqué gut ay gaay maanaam balancement baa ngi fi énergie bi lars di ci saare waxtu wu nekk mi ngi fi kon bu kenn jóg di tato ne di wuti koo xamut fu mu jëm xamut fu la jëmee nga di ko topp wa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aqsin fasal ku fekk oto bu pneu ya dañ ñu dindi ba téere ba ba noppi mu IG nga ne ca nongu na ndakaaru laa jëm doo dem kuy dem da ngay tabbi ca ñay dem te yàlla takkal na sëñ Tuubaa gaa ñoo xam ne ku bëgg a gis yoon wa ca ngay jaawali xaada ahbaban bihim udhiru nuska kenn mënta tuumal sëñ Tuubaa ku am ko mel ni sëñ Mbàkke Buso maam Cerno Birahim am gaa ñu mel nii kenn mënta indi jamono ba beru ak njëbbulu mooy lan est-ce que nit ñi xam nañ lan moo di jaayam ba ku ne ñu def la jaayante na ma ak yow jox naa la sama bopp adduna ak àllaaxira kan nga jaayante te bari na ci yoon wii ñu jaayante ñoo xam ne jaayante wul ñoom ay nit a jaayante ñoom waaye jaayante wul yor mbooloo topp leen kenn mës a dégg seen siyaare kenn mës a dégg seenu jaayante loo yor lekk tabaxee jàkk ak sa këru bopp di ñi nga loolu du sëñ Tuuba dañ ko war a dénoncé tey la ci gën a metti mooy dangay ñëw ñu war laa wax aw yoon duñ la ko wax di la kapp-kappal ak di la jay nga defe ne ci dëgg nga nekk nekkoo ci dëgg kenn du sëñ Tuuba nag dossier yi moom bari na sëriñ bu naan la yaay waaja dossier classé la koy def ñi mewu ko woon sëñ Touba bu koy siyeen moo ak yow yéenay dawandoo sëñ Touba lu leer la jàngale mayee wut ci yoonam wi ay caaxaan ak i tappale ak lu neex nit def sëñ Touba diggalu ko ñu ngi ñuy yàpp ci wet bu ne attaque yaa ngi bàyyi ko fu ne te dara waralu ko mooy ni ñuy tuddoo te du bokk ak ni ñuy mel ab murit sëñ tubaab moo ne saaliku yi nii la ñuy mel dangay ngay fexe ragal yàlla amul yóbbal saxoo jàng alxuraan ak xasida tege ca yoon wa waaye mus as póon jaxasoo jigéen joo war te jaxasool boo ñëwee ñu dara la ci saal ngay lekk boo génnee lëngate sëñ bi nee na ma àjjanaay sa kër ci fan fuy condition yi Serigne Mbacke Bousso mu baax mi radiyallahu taala anhu de moom waxut loolu nee na Sëñ Tuubaa de ni mu ñu def huwa alxaws walmiqyaas rabba qulubana wa jusaamana fal kullu safin wa nay dañoo defar ba suñuy xol jag suñ jëmm jat noonu la ñuy defaree waaye fecc ak tàccoog sar xolleeg lu naqari yàlla ku ca bëgg a yegg ci yàlla da ngay nax sa bopp Sëñ Tuubaa nee na man tawajjaha ila arrahmani arrahimi rafaqnaahu